làmb ji tëj na ci 15 août bi ñu génn waaye fi mu nekk nii dafa mel ni ki promoteurs yeeg mbër yi teel nañoo commencé lii di saison bi ñuy dëgmal gannaaw Gris Bordeaux ak Balla Gaye la 7 août bi ñu génn te Balla Gaye daan Gris Bordeaux waaye mu nekkoon combat boo xam ni kenn newul ak cim ci ñaari mbër yooy rawatina Gris Bordeaux bëri avec la manière yàlla ñëw mu daal di ñàkk dafa mel ni ki jamono ji Gris Bordeaux pare na pour tooyalaat xaftaanam moo tax Kajoor production bu Ibrahima jaar na fa tey jile ci talaata bi nga daal di signé combat Gris Bordeaux Ama Baldé muy beneen grand contre bi nga xam ni yàggu nañ ko sàkku te it combat bi. ne doon combat bu am solo ci Gris Bordeaux bi nga xamal ne si kàddu manager am di xalifa gannaaw ci signature bi nee na bi ñu gisee seen mbër mu bëri contre Balla Gaye ak manière bi mu ko bëree ak état physique bi mu nekkee jàpp nañ ne mën nañu daan xale yi moo tax mu dem jëli Ama Baldé waaye kii di ab Abdou Bakhoum moom nam ngay defee rek ay tontoom moom du forox te day neex lool nee na Gris waa Pikine ñoo ko sauvé gannaaw bi ko courant bi maase woon te dañoo jàpp ne woon. Gris bi courant bi maasoon jamono ji physiquement nekkatul te mbër bi dootu fa nekkati waaye biñ gisee mu bëreeg Balla Gaye am nañu xel mu dal ne war na mën a bëreeg Ama Baldé bu neex moo tax ñu jël ko kon mi ngi noonu combat bi tey jëlee la taxaw Kajoor production bu Ibrahima Gris Bordeaux ak ki nga xam ne moom mooy Ama Baldé Ama Baldé wala tooyalaat xaftaanam askan bi ak ak lu làmb yàkkamti ko gannaaw deux ans muy daw ci combat diggante moom ak kii di Modou kon tey jile jugee a Pikine jaar Parcelles dellu fële ca Fass muy dër bi ak fas combat bu neex kon jamono ji bër bu ndaw la ñuy def waaye promoteurs yi ak ñi nga xam ñoom ñooy mbëri ñu ngi ci négociation am na yeneen i combat yi waaj a taxaw saison bi tijji weer octobre bi ñuy dëgmal.